maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ousmane Diallo capitaine de l'ASC Farba. Ousmane naka nga gisee seen match bi tey. waaw match bi ni ma ko gisee sa ça a été quoi métti woon na au début quoi parce que dañoo ñëw en retard équipe bi gën ñoo pare après loolu leen wax sax ma ne leen nañ taxaw déglu leen quoi bu ñu leen dégloo ba sunu muscle yi daal di bàyyi ñu door a yéeg seen kaw quoi mais malheureusement après balaa ñu leen le temps que ñu leen di déglu ñoom ñu daal mais après dugg vestiaire ñëw coach bi joxewaat ay consigne xam nga bi ñëwee ñu répété ko à la lettre après récompensé wuñ égalisé tiro bi moom xam nga affaire de carte la waaw foofu moom amul ku mën quoi carte la rek quoi xëy na nag yàlla ñu la jox ndam mi dañ ko ci sant après di leen encourager pour la prochaine fois. Euh, vous êtes qualifié en demi-finale euh, naka ngay apprécier li nga xam ne moo nekk tournoi waaw tournoi man je pense que ni initiative bu baax la parce jeune talent yi wane seen bopp xam parce que man su may ñëw bi may ñëw sax man jël moon décision jouer quoi chez Juxel damay ñëw rien que pour accompagner équipe bi mais malheureusement xam nga suñu matul léegi je préfère ma jouer tamit euh, tournoi la boo xamante ni dina permettre tamit ah comme équipe fii dafa am benn équipe boo xamante ni équipe championnat la dina permettre tamit ñu gis ci joueurs yi quoi ko donc lu baax la quoi kon mën nañu wax ni ren Farba duñ la fa gis si nawetaan bi. Farba in li may ñaan suñu borom du ma du ma ko nëbbu quoi su ma su ma sañoon su ma sañoon parce que loolu mooy sama mbébét mais comme falaa laa dëkk fa laa kiyee fa laa sama lépp mënu ma leen bañal benn affaire mais sama yéene mooy wax dëgg fa yàlla su ma demee phase nationale ba ñëw wax dëgg fa yàlla damay raccroché daal di concentré wu si championnat bi waaw.